ngi dogee Dakar. mu ngi dogee Dakar waaye man. Eh, eh, ci Sicap Mbao. ci ka bi ci wetu kaam bi. Mhm. ci station bi foofu la bus yi ñëw. bi ñu ñëwee fekke mm, woote nañu pour ñu dagal ñu billet ah léegi ñu ñëw man ma ñëw yéeg ci bus bii ni ñu ne déedéet yow doo ci bii. fekk toog naa si gannaaw chauffeur bi chauffeur bi mm, papam ñoo ñoo jànganoo alxuraan mu ne ma kaay toog fii si sama wet professeur bi ñëw ne doo fi yegg yow ci beneen say bagage ñu ci oto bi ngi nii ah, naa ci bii ah am ah, sóor daggoon naa bi ma daggee billet ci bii ñu ma yow ci bële ngay yéeg. Mm. mu weerante ma. Mm. ñun ma ne sama bagage ñu ne après dañ koy jël fale. léegi am ngay mbokk ci bis comme ni am naa fi lu mu xaw ma huit personnes xaw ma dix personnes. xam ne ñàkk na seen bakkan. ah non ñàkkuñu seen am na ñi ma gis. waaw am naa gis naa benn maire bi ak euh, doom sama garam bi ak euh, sama benn rat. Mhm. ñooñu am na ki gaañu ñoom dem nañu hôpital. Mhm. waaye am naa ñi ma gisut. Eh, am na kenn ki ki xaw a mag tuuti te mu am cocotte nii te eh, moom ak jabaram ak doomam ak beneen xale góor ñun gisaguma leen loolu moo tax ma wàcc fii ma ne il faut ma xool léegi damay dem hôpital bi ma xool bu ñu demee foofu bu ñu ma wonee comme que xam naa leen danaa leen mën a xàmmee waaw gannaaw gis bi nga bokk nga toppoon waaw gi si gannaawam laa topp ñu lay woon waaw ok ñu ngi sur place nii gis ngeen leen euh, bis baa ngi noonu taxaw moom nag euh, côté Dakar la jéego jëm Kédougou horaire Kédougou bi d'après première information yi jot moment bi ñu wax ak yéen ba léegi nit ñi kenn mënu ko génn ci bis bi gis ngeen sapeur ñu ngi def seen liggéey carrément mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la vraiment ñu toppal leen ko ci voilà malal bi oto bi jóg na jóg na carrément oto bi loolu lañ mën wax gis ngeen ko yëkkati nañ ko euh, gri bi ñëw nañ euh, jàppal nañ ko yëkkati nañ oto bi moment bi léegi nag li ci des ñu xam bilan provisoire bi ñaata la ci kanam ngeen ñu xaar Euh, parce que le gouverneur de Kaffrine agsi na léegi ànd ak euh, le sous-préfet de Ida Mouride ñu ngi fi le maire de Saly Escale mi ngi sur place ñoom ñëpp ñu ngi fi xam naa dañu jëm ut seen réaction léegi ñi ma xam ak euh, médecin chef bi wala waa ñu wax ñi bilan bi lan ak ñaata la parce que bu ñu waxoon neuf je crois que jot na évaluer parce que li ñu fekk fi mu tëdd rek ëpp na neuf morts jot nañu am lu évaluer lu ñu lu ñu évacuer du moins kon donc daal ci gis nañ gars yi nekk hôpital sant baax di leen gërëm di ñaan ñëpp leen mais bis moom woon ak grippe yi xam ne doon jaar fi daaka jàppale na waa Koungheul ba gars yëkkati ko comme ça jàmm am na si côté boobu noonu bis bi jog na lépp lu fay nit nekkoon ci biir génn nañ ko mais bëri nañu si ñàkk seen bakkan ñu toppaleen ci kanam tuuti rek ñàkk seen bakkan ak blessé dañ ko am ak docteur El Hadji Malick Niang wala ak ñi fi nekk ñëpp voilà malal moment bi oto bi jog na jog na carrément oto bi loolu lañ mën wax gis ngeen ko yëkkati nañ ko euh, grippe bi ñëw euh, jàppale nañ ba yëkkati nañ oto bi moment bi euh, li la ci kanam ngeen xaar Euh, parce que le gouverneur de Kaffrine agsi na léegi ànd ak euh, le sous de Ida Mouride ñu ngi fi le maire de Saly Escale ñu ngi sur ñoom ñëpp ñu ngi fi xam naa dañu jëm ut seen réaction léegi ñi ma xam ak euh, médecin chef bi wala waa ñu wax ñi bilan bi lan la ko ñaanal la parce que bu ñu waxoon neuf je crois que jot na évaluer parce que li ñu fekk fi mu tëdd rek ëpp na neuf morts jot nañu am lu ñu évaluer lu ñu lu ñu lu daal ci gis nañ gars yi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan leen mais bis woon ak grippe yi xam ne da doon jaar fi dem daaka jàppale na waa Koungheul yi ba gars yi ko comme ça jàmm am na ci côté boobu noonu bis bi jóg na lépp lu fay nit nekkoon ci biir génn nañ ko mais bëri nañu ci ñàkk seen bakkan ñu toppaleen ci kanam tuuti rek pour xam lan la lan ñaata nit ñoo fi ñàkk seen bakkan ak blessé yi tout ça dañ ko am ak docteur El Hadji Malick Niang ak ñi fi nekk ñëpp